bonjour bonsoir bref salaamaaleykum donc maa ngi leen di nuyu ñëpp ah moi c'est Abdou Aziz Fall donc je suis entrepreneur culturel je suis manager président directeur général de l'agence dénommée Sénégal Pub Events donc qui est une agence de communication digitale et événementielle donc tout ce que nous faisons c'est de la culture en réalité aujourd'hui on va essayer un tout petit peu de parler si benn mbir mooy ce qu'on appelle les fonds Covid. avant ñuy ñëw si fonds Covid yi ñun ñi ngi remercier le président Macky Sall donc euh, à travers les bonnes actions parce que quoi qu'on puisse dire il a pensé au acteurs de la culture donc quoi qu'on puisse dire même bu doon cent nga si am même bu doon fukki dërëm nga si am donc l'essentiel c'est de faire donc le président en réalité def na li mu war a def euh, donc euh, à travers. son ministère euh, de la culture e de la communication donc fonds yi nag dugg si na Sénégal donc euh, acteurs yëpp yëngu nan donc euh, les associations également les mouvements culturels voilà euh, la structure bi ñu reconnaître muy la SODAV et cetera donc ñëpp ku si nekk nag jug nga pour récupérer say fonds pour ñi nga xamante ni ñoom ñooy say bénéficiaires parce que bu ne fonds Covid yi ñan ñoo ko moom ñu ni les impactés ñi nga xamante ni euh, ils se sont engagés seen lépp en fait c'est de la culture. en fait suba xëy ngoon li ñuy jël li ñuy am as tuut di ko yóbbu seen kër c'est à travers la culture. donc ñu si jaajëfal euh, euh, le ministère de la culture et de la communication parce que gëstu na. ñu ni subvention bi euh, euh, fonds bi c'est à hauteur de trois milliards ñii naan trois milliards cent quatre-vingts millions et cetera anyway on n'en sait pas quelque chose de plus grand que trois milliards donc à travers ces trois milliards ñu ni li si ëpp si fonds yooyu noonu kat ñi ngi ko jagleel ñi nga xamante ne ñoom moom mooy la SODAV ah, c'est bien parce que quoi qu'on puisse dire reconnaissance juridique dafa baax si loo gis parce que boo nekkee artiste pour man li le plus important li nga war a njëkk a def mooy dem affilié wu nga am reconnaissance juridique ñu war a mën a ni kat prouver que ni yow tu es un artiste su dee producteur nga ñu ni yow un producteur au moins ñu xam ni s'il y a des opportunités s'il y a des avantages s'il y a des choses yoo xamante ne war nga ci mën a am nga mën a dem foofu pour revendiquer ko aujourd'hui on parle de fonds Covid mais il y a beaucoup d'artistes au Sénégal xamuñu luy droit d'auteur xamuñu par exemple lan mooy fonds yi nu mu demee fan la jógee et cetera da ngay jékki ñu woo rek am nga fi benn cent mille benn deux cent mille benn trois nga daw récupérer ji ko alors que tel n'est pas le cas le plus important aujourd'hui c'est de aller vers l'information comme ni nga koy waxee parce que nous tous xam na li fi nekk aujourd'hui si tu es dans le millier à quatre-vingt-un millions pour cent tout ce que tu dois savoir mooy lépp loo xamante ni war nga ko xam en réalité mën na la fekk fa nga toog mu xam si tu pas à cent pour cent dans le millier lu si bëri da lay rëcc donc amaana euh, nous n'avons pas une très trop grande expérience en matière de management en matière de la culture etc mais aujourd'hui il serait beaucoup plus important de faire benn briefing de créer également un cadre de concertation pour les acteurs culturels en fait ñan ñooy les acteurs culturels ñii ñooy les acteurs parce que y avait un débat que je suivais sur euh, une chaîne de télé donc bu am indi benn frustration donc c'était c'était c'était parti euh, d'une émission rajo vers une émission télé alors fonds yi ñu ni kat li si ëpp SODAV la jëm mais li si des on va on au moins financer des projets mais également donner aux associations yi nga xamante ni am na reconnaissance nekk ay comme lu si mel ni ay AMA ay RESU ay AMS ay AEM ak yeneen yeneen yeneen yoo xamante ni c'est des structures yoo xamante ne dañuy yëngu si si si si dans le monde de la culture mais le plus important tey mu am benn jàngat bu clair buñ ci def tey yaa de ces yoo xamante ne ñi ngi si benn ñaari association si yooyu ma tudd mais en réalité dañ leen identifier si benn association identifier waat leen si beneen association moi je manage des artistes donc j'ai plus de quatre cinq artistes yoo xamante ni maa ngi leen di manager sur le plan national comme sur le plan international. Mais le plus important, ils se sont tous inscrits sur la plateforme bi nga xamante ni dañ ko lancé woon pour au moins tout un chacun ku si nekk mën a nekk si base donnée bi pour wane ni yow kat acteur de la culture nga. Mais on remercie de passage euh, euh, les acteurs yi nga xamante ni y un comité de pilotage boo xamante ni ñi ngi ko doon gérer à leur manière donc di ko gérer également ku si nekk association yi ñu tudd. ku si nekk am fa benn représentant di def ay rencontre di xool ay tig di ay xool ay tag ba am des idées yoo xamante ne yu claires sur la chose pour war ne il faut d'abord ñu def identification des bénéficiaires et que vraiment c'est un travail extraordinaire mais il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui gisuñu ci seen bopp il y a beaucoup d'acteurs culturels yoo xamante ni gisuñu ci seen bopp te aujourd'hui tey li li li li valable pour ma Samba valableul pour ma Demba li valable pour ma Demba également valableul pour Ñoxan Njaay et cetera mais le plus important mooy identification boobu noonu ñun gis nañ ci loo xamante ni tey ça peine la cœur lu tax mu metti moi je travaille avec euh, une équipe boo xamante ni ça composé de quatre cinq personnes yoo xamante ni on travaille jour et nuit ñu affilié si benn mouvement mouvement bi sa s'appelle le mouvement reçu en fait Nous nous sommes inscrits à travers euh, le mouvement reçu. Moi, je suis manager, je me suis inscrit au nom de AMA, Association des managers et agents d'artistes. Donc, au passage, je remercier tous les, tous les membres de AMA ainsi que le bureau exécutif, de remercier au passage le président, donc Tafa, parce que vraiment, il s'est battu pour que au moins Euh, aujourd'hui ñu am benn euh, reconnaissance un peu partout par rapport ak ñu jox gëdd manager mais également manager cër bi mu war a am dans le monde de la culture mu am ko à travers son son SG également que je remercie parce que euh, ils se sont engagés volontairement pour dem def des plaidoyers pour que ñun ñu mën a am accès ci fonds Covid yooyu et que vraiment au sein de AMAN nous nous nous sommes engagés pour dire que voilà jot nañ leen war a jot au niveau de Ama et que ñu ngi ñu ngi koy santé le président de la république moom mi am idée bi di ko santé également ñëpp comme ni ma ko waxee ci départ bi rek même bu doon un pour un lan am ci fonds Covid yi mën nañ ko kii mais aujourd'hui li ma jàngat bi ma ci am rek mooy que ni nous en tant que acteur de la culture waruñu toog ba dernière minute ñuy wut wàllu wala tey artiste bu fi feebar ñu lay kettal ci télé yi wala ñu nous ne sommes plus de l'antiquité artiste en réalité day noble artiste en réalité war na am benn philosophie d'entreprendre de créer des choses innovatrices donc artiste en réalité mooy ki nga xamante ni warul lekk waaw am naa oto bu mool am naa benn kër gu mool et cetera yam fa non non non non artiste en réalité mooy ki nga xamante ni war na man di di di di pousser à ce que les gens di investir di di di investir seen bopp di investir seen famille et cetera li ñuy def